jàmm ci chaîne bi di L'oreille du Monde TV di len proposer ay vidéo religion actualité reportage direct ngir bëgg ci jot demal abonné wu bés cloche de notification bi ba nopi laalal sa j'aime L'oreille du Monde TV moy leeru ki fayatul raaxi biin yéen ñi bàyyi xel L'oreille du Monde TV salaamaaleykum jërë ngeen jëf di top bi ak safo bi lu yees jëm ci dossier bi nga xamante ni mooy Abdou Karim Gueye mi nga xam ne dañ ko tegoon loxo ndiki tey jii ci alxames bi ci suba ñi defoon lu ni mel nag mooy waa division des investigations criminelles xamees na itam li waral lu ni mel ndax dañu koy tuumaal ni dafa yëkkati ay kàddu teg ko ci état bi daanaka dafa jiiñ ke ni état bi ñoo rey ki nga xamante ni mooy imam Aliou Badara Ndao Aliou Badara ndaw moomu ci ak fàttali dañu ko tëjoon lu ëpp ñaari at ndax dañu ko doon jiiñ li nga xamante ni mooy wàllum terrorisme kookooy di imam Alioune Badara Ndao tollu woon ci juróom benn fukki at ak ñaar dafa génn àdduna ki nga xaw loolu nag ki nga xamante ni mooy Karim Xrum Xax bokk ci nit nitu dëgg yëkkati woon ay kàddu doon ñaawlu ak di naqaru nekkin wi nga xamante ni moom la nekkee woon foofee bi bile kaso ndax da xam xamle ni def noon dund li nga xam ne mooy ay torture yu metti lool ci kaw loolu nag mbokki activiste yi nga xamante ni ñoom la bokkal nee nañu bu dee loolu rek la du Karim kese moom la ñuy jàpp ndax ñoom ñëpp dinañu leen jàpp ndax li nga xamante ni moom la Karim yëkkati wax ko mooy kàddu dégg